Notre ministre, à toute la délégation qui l'accompagne et à nos illustres hôtes du jour. Monsieur le ministre, l'INEFJA peine à trouver les mots pour vous traduire fidèlement tout le plaisir qu'il a à vous accueillir encore une fois dans ces murs, car il s'agit bien de la seconde fois en moins de deux ans. Cela témoigne, si besoin en était, de l'intérêt tout particulier que vous portez à cet établissement et à la cible qui s'y trouve. Soyez-en sincèrement remerciés, Monsieur le ministre, car l'effet qu'exerce une telle considération sur ces jeunes et tous ceux qui sont impliqués dans leur encadrement, de même que sur les associations d'aveugles, est d'une dimension telle qu'il mérite d'être noté avec force. J'en veux pour preuve l'investissement volontaire, spontané et enthousiaste de tous les personnels et élèves de l'Institut toute cette semaine durant afin de préparer votre accueil. Au demeurant, le jeu n'en vaut-il pas la chandelle? Je répondis eh bien si, bien entendu, car au-delà de la haute satisfaction morale de se sentir valorisé et bien considéré, il s'agit pour la communauté éducative de l'INEFJA de recevoir en cette cérémonie et pour la première fois un équipement d'une telle valeur en un coup. un important lot de matériel didactique d'une valeur de près de 60 millions de nos francs. allant du matériel de transcription en braille à celui de support à l'enseignement des disciplines scientifiques, en passant par des métiers à tisser de dernière génération pour la formation professionnelle et des cannes blanches pour la mobilité des élèves, en plus de deux bus de 30 places flambant neufs. C'est ainsi près de 100 millions de nos francs qui sont investis et rien que pour l'INEFJA. Oui. Je je suis tenté de dire qui dit mieux. En tout cas, le moins qu'on peut dire ici est que ce sont là des aspects essentiels du paquet que vous venez de réaliser à travers ce geste, monsieur le ministre, la qualité et l'équité. En effet, le développement de la qualité des enseignements apprentissages passe par la mise en disposition de matériel et d'équipements de qualité comme ceux que nous avons reçus. Et lorsqu'ils sont destinés à des besoins éducatifs spéciaux, ils apparaissent alors comme un bel exemple d'équité. Monsieur le ministre, il nous reste certes du chemin à parcourir, car c'est le domaine qui est vaste, et très vaste. Seulement, nous devons reconnaître en même temps qu'un grand pas vient d'être franchi, car au-delà des opportunités désormais réelles de développer à l'INEFJA euh, un, ense un enseignement de qualité. Euh, il faut reconnaître aujourd'hui que avec l'utilisation de la machine Braille Box dont vous venez de suivre euh, la démonstration tout à l'heure, vers 5, d'une vitesse de près de 460 pages à l'heure, qui fait partie des équipements, l'inexistence d'un environnement lettré, tactile, qui a toujours préoccupé les intellectuels aveugles, trouve solution en partie. car il est maintenant possible à notre service de production braille de produire de larges extraits en version braille des manuels et œuvres au programme en attendant la mise en œuvre effective du traité de Marrakech sur les droits d'auteur et la propriété intellectuelle et la concrétisation des recommandations du chef de l'État issues du Conseil des ministres du 23 juillet 2014 et relative à la mise en place d'une imprimerie nationale adaptée en écriture braille. Monsieur le ministre, je ne saurais terminer sans évoquer un volet important de la qualité et qui mérite un peu plus d'attention. Il s'agit de la problématique de la formation des enseignants spécialisés et particulièrement en langue arabe. Nous pensons que des pistes peuvent être explorées dans ce sens en mettant à contribution l'expertise locale et le partenariat avec des pays arabes amis du Sénégal. Monsieur le ministre, vous me permettrez de conclure mon en vous de ce que je peux appeler une psychose que vivent chaque année enseignants spécialisés et élèves à l'approche de l'examen du baccalauréat et liée aux conditions particulières auxquelles ils y sont soumis. Les élèves aveugles et leurs enseignants sont, à ma connaissance, les seuls à être obligés de rester en salle jusqu'à zéro heure et souvent au-delà. Nous sommes conscients, Monsieur le ministre, que le baccalauréat n'est pas organisé par votre département. mais nous savons pouvoir compter sur votre sensibilité à tout ce qui touche cette cible pour intercéder en notre faveur auprès des autorités compétentes et dans la mesure du possible afin d'arriver à de meilleures conditions de passation des épreuves et une meilleure prise en charge des enseignants eu égard à la spécificité du travail qui leur est demandé et aux contraintes qui y sont liées. Je vous remercie de votre aimable attention. jox na la ay jumtuwaay yoo xam ne yii waru garu nguur la waru garu gouvernement pour mu jël xale yi senegal yépp ak ku ñu mën a doon def leen ci ay conditions yoo xam ne yi loolu yàlla def ci ñoom danañ ko mën a jariñoo pour ëllëg ñu jariñ seen réew muy wane ne lii nga xam ne moom lañ fi def indi ko fi muy ay jumtuwaay ay matériel ay oto pour xale yi mën a jàng ci anam bu gën a sell won ngeen ne ñu su fekkee ne continuer na dinañ ko def dana yóbbu jàng fii ci INEFJA fu sore sore sore biñ fi ñëwee at ci ginnaaw ñu defal ñu fi ay jàmbat dama leen waxoon ne li nga xam ne président Macky Sall moom lañu sant ñun ñi nga xam ne ñoom la def ci gouvernement mooy ñu jegen askan wi xam lan mooy seen soxla te li nga xam ne moo tax ñu teg ñu fi mooy jaamu soxla askan wi ci kaw loolu lan leen fi degoon ay dig ne leen seen matériel yooyu ngeen wax danañ ci def ay jéego oto yooyu ngeen wax ne amuleen ko danañ ci def ay jéego tey ji dige boobu moom lañ doon wàccoo di leen indil ñaari bus di leen indil matériel yoo xam ne yi xale yi moom la ñuy jàngee donc li ñu waxoon ak yéen wàccoon nañ ko ba mat sëkk waaye du yem foofu ndaxte wax naa aussi directeur bi yore mbirum tabax yi ci ministère bi ne ko mu ñëw xool bi mu ñëwee xool def na benn devis daal di ne lii suñ ko defoon ci bâtiment yi dana yokk dana dana gën a rafetal nekkin bi léegi ci budget 2017 bu ministère bi nee naa ko liggéey bi ñu war a def yépp pour réparer li nga xam ne moo fi yàqu ñu def ko ci budget bi def ko incha allah ci at mi ci budget bi ren ji danañ ko def indi nañ fi tamit ñaari imprimante braille yoo xam ne yi defe naa ne suñ ko doon seet ci réew yi ñu wër tamit benn la fii doon fii nii ci réew yi ñu wër ñaar benn bi ñëw na beneen bi fekk weer incha allah wala ñaari weer dana yegg si te loolu dafa nekk jumtukaay yu am solo xale yi ñu jàngalekat yi ñu war a tàggat tamit wax naa directeur bi yore mbirum tàggat jàngalekat yi ne ko budget bi muy jël pour di tàggat jàngalekatu Sénégal nañ ci defal benn pàcc boo xam ne bii dañ ciy tàggat jàngalekat yi nga xam ne ñoo nekk fii ci INEFJA muy jàngalekatu arab yi muy jàngalekatu français yi. pour cérémonie distribution des prix comme wax naa leen mënu moon a mënu matal lépp luy lycée ak collège Sénégal dam ne woon. lycée ak collège d'excellence yi nga xam ne xale yi fay nekk dañ leen di recruter ci concours ñoom rek laay dem prytanée militaire sax daaw ma fa dem at mu jot ministère des forces armées moo fay dem waaye Mariama Ba at mu jot daan fa dem léegi nañu jàpp ne ministre de l'éducation nationale su amee beneen école bu muy dem di fa def distribution des prix te loolu nañu jàpp ne def nañ ko ci calendrier ministère bi wax naa ko ak directeur bi at mu jot incha allah xale yi nga xam ne ñu ngi góor góorgóorlu di jàng fii danañu ñëw def fi cérémonie de distribution des prix bëggal leen bëggal leen ci seen kanam njaboot bëggal leen ci seen kanam waajur ci seen kanam jàngalekat loolu ñu fi def nag dafa méngoo ak programme bi nga xam ne moom la président Macky Sall def ci njàngale bi dafa am ñaari bànqaas yu am solo ci programme boobu benn bi mooy dañoo war a jéem yokk tanu njàng mi ameliore qualité njàng mi mooy yokk tanu njàng mi ci loolu matériel bi ñu leen jox dana may xale yi jàngee fii ñu am jumtukaay yoo xam ne yii qualité njàng mi dana yokk fii ci INEFJA ñaareel bi suñ koy def dafa méngook beneen ñaareelu banqaasu pake bi muy yemale xale yi Sénégal yi xale yi nga xam ne yàlla may na leen seen cër yëpp mat ak xale yi nga xam ne yàlla def na yenn ci seen cër matul ñoo ñëpp ñu yemale leen waaye nag damay wax ne ci loolu ak lu luñ ci mën a def am na ay jéego yu bari yoo xam ne yi suñu réew war na ko cee def parce que am na ay xale yu bari yoo xam ne yii yàlla may na leen xel pour jàng waaye dañoo tëx wala dañoo gumba wala leneen du dañoo sëgg wala leneen yàlla mayu leen loo xam ne lii da danañu mën a ëllëg pour continuer seen njàng loolu yëpp dafa nekk loo xam ne lii gouvernement bi war na cee taxaw gouvernement bi war na cee taxaw xale yi nga xam ne yëpp am na lu wàññeeku ci seen cër ñu xam ne ay doomu Sénégal lañu gouvernement bi taxaw ci seen ginnaaw di leen dimbale pour ñu jàng loolu incha allah danañ ci taxaw maa ngi maa ngi maa ngi gërëm maa ngi gërëm ñi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp muy gouverneur muy autorité politique yi muy maire ville bi muy honorable député Hélène muy association parents d'élèves yi association de non voyants yi nga xam ne ñoom ñoo fi teew personnel bi ñiy jàngale ak ñiy yore xale yi di leen di leen taxawu muy toggkat yi muy ñi nettoyer muy jardinier yi personnel administratif et technique bi ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant